mbokki àddina dal leen ak jàmm ci kii di Serigne Cheikh Ndiaye Njare moom Serigne Cheikh Ndiaye Njare di fajkatu aajo di listixaar di ñaan di faj mboolem tawat yi nga xam ni dafay dal doomu aadama moom Serigne Cheikh Ndiaye képp ku ko xamul itam dégg nga ko ngir lépp lu muy def mi ngi koy lay taayee alxuraanul karim moom Serigne Cheikh Ndiaye Njare dafa yëngu ci wàllu nopp rawatina ci diggante góor ak jigéen képp koo xam ni da ngay lijjanti ay kayit tamu jafe la nga bëgg mu yomb lool jokkoo la kii di Serigne Cheikh Ndiaye Njare dafay faj rab ci doomu aadama sekk sekki ko sànni ni ñuy sekkee dégg gu la jam ku bëgg ubbeekukaay yi moo ñu ci doy yor na itam cangaayu njare di cangaay lu am doole lool bëri njariñ ci yaramu doomu aadama moom Serigne Cheikh Ndiaye njare itam andi na leen ndomba gi nga xam ni moom lañu duppee ndombak njare di samp nit ci bërëbu liggéeyukaay yi ba du ko mënal dara di liggéey itam bayre ak kaaraange moom Serigne Cheikh Ndiaye nii muy ñaane noonu lay faje ci gàncax ak ci ren ñeel mboolem tawat yi di dal doomu aadama yéen ñi amee ndoxum siti hémorroïde diabète asma ak néew kàttan ci wàllu sëy wala tële andi na leen garabu ngóor gi mu tuddee gaynde gu góor gi soxor gaaw efficace di la jox kàttan 100 pour cent ci sa biir néegu sëy yéen mbokki Sénégal yéen mbokki àddina jokkoo leen ak Serigne Cheikh Ndiaye njare borom njariñ lii ci 78 475 27 82 78 475 27 82 ak Serigne Cheikh Ndiaye Ndiare jaax la jeex na njaaxare tuxu na xel mu dal sañ ci dëkk ba faaw. ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéene kay ñaari doomu Sénégal yi nekk ca AS Monaco la surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa Krépin jaata ak Ismaïla Jakobs waaye journal bi nag dafa samp laaj est-ce que ñaari doomu Sénégal yi jotul ñu jugee ci AS Monaco li ko waral moo di kat li ñuy toog ci banc bi jamono jii moo ëpp li ñuy dugg ci terrain bi di football ndax Ligue 1 bu France kat bi mu dooree ak tey jii ñaari match yi ca jot a am ñoom ñaar li ñu football lépp suñu ko boolee dix-huit minutes képp la kon jot nañu jugee ca club boobee bu dee Ismaila Jakobs moom soo moytuwul mën naa am mu dem ca Angleterre ndax club bu ñu naan Nottingham Forest dañu koo bëgg te ba léegi ñoo ngi càmbar ay mbiram bu dee Krépin jaata moom mën naa am mu delluwaat ca Belgique loolee la journal bi samp comme laaj yéen it ma leen koy laaj ci commentaire yi waaye journal bi tamit ñëw na ci ñancoo Sadio Mané ak waa Al Nassr ñoom nag qualifié nañu phase de poule Ligue des champions asiatique démbu Al Shabab Al Ahli lañ doon jàkkaarlool gagné ko ñeenti bal ci ñaar naam Al Nassr ànd ak ñancoo Sadio Mané dañ lañ leen mëne woon ca match boobee waaye ci ndaw ga dañoo am ndam lu yaatu ñancoo nag doxal na ca match boobee waaye dugalul këlëbam di Al Nassr nag dañuy football ligue des champions asiatique asiatique nag boo leen ko déggee fii ci Afrique dañu naan Afrique bu dee ca Europe ñu ne Europe dénduk asi dañuy amal Ligue des champions waaye Ligue des champions boobee kenn du ko nettali waa Al Nassr ak ñancoo Sadio Mané fii ci Afrique it am na Ligue champion champions Ligue des champions boobee sax jamono ji ñoo ngi toll ci tour préliminaire yi réewu Sénégal nag club bi leen teewal ci tour préliminaire yooyee moo di Génération Foot keroog samedi dañoo demoon ca Guinée Conakry Afia la ñu fekki woon 0-0 la match boobee jeexee ndam demul ndam dikkul waa génération foot nag ñoo ngi waajal match retour bi waaye jamono ji moom am nañu xel mu dal ci seen bopp waaye tamit taxul ñu naagu li ñu bëgg moo di jëmbat fulla ci match retour bi mën a am ndam ñu jugee stade yéenekaay dem groupe future Médias fekk fa record yéenekaay ñetti gan yi équipe nationale bi di xaar ci ñaari match yi ñu war a amal ci weer wii ñu dëgmal la surnale bi fësal ca xët wu njëkk wa ñett ñooñee moo di Lamine Camara nekk ca Metz Habibou Diarra nekk ca Strasbourg Andy Diouf nekk ca Lens ñett ñii nag bu ñu ñëwee est-ce que du yëngal équipe nationale national bi est-ce que du am mag ñoo xam ne dinañ leen bàyyi ci banque bi ñu toog noppalu loolee la journal bi samp comme laaj yéen it maa ngi leen koy laaj ci commentaire yi ndax ñetti ñii kat football am na lool yaakaar ci ñoom te équipe nationale bu Sénégal bëri na ay cadre maanaam bëri na ay mag te mag ñooñee nag est-ce que bu xale yii ñëwee duñ leen yëngal loolee la journal bi samp comme laaj journal bi tamit ñëw na ci Bellingham jamono ji nag dafa jaaxal waa Liga bi li ko waral moo di doomu Angleterre bi gan la ca Liga e-sport rek bokk ñoo ngi toll ci deuxième journée maanaam ñaareelu bëccëg waaye doomu Angleterre bi am na ñetti bit ak clubam di Real de Madrid loolee nag jaaxal na lool wa Liga bi. ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa liki ñetti club yi gën a mag ca Ligue bu France le journal bi fësal ca wu njëkk wa assurer le tir bu ngeen di tirer de fexe leen ba mu jub te dal loolee nag li tax journal bi waxal ko club yooyee moo di xam ngeen ne mercato bi li ci des matatul fukki fan te ñetti club yooyee nag noppeeguñu kenn ku ne ci ñoom li mu bëgg moo di yëngalaat sëb club bu dee waa olympique bu marseille moom ñaar ñii la ñu bëgg a jaay ke njëkk nag doomu france la di Matteo Guendouzi li ñu bëgg moo di jaay ko keneen ki moo di doomu Maroc bii di Azzedine Ounahi ñaar ñooñee la olympique bu marseille bëgg a jaay suñu amalee loole ba noppi dolli waat dooley équipe bi ndax ñoom kat ni ñu dooree saison bi baaxut demoon nañu tour préliminaire ligue des champions ñu éliminer leen te ligue 1 bi tamit ni ñu ko dooree taxukaa baax lool naam amaguñu défaite am nañu benn victoire ak benn match nul li ñu bëgg nag moo di tabaxaat seen club boobee bu dee waa Paris moom ni ñu dooree Ligue 1 bi baaxul ndax ñaari match la ñu am am ñaari poñ kepp naam amaguñu défaite waaye amaguñu ndam li ñu bëgg nag moo di jaay jëndaat ñi ñu bëgg a jaay bokk na ci doomu Italie bii di Marco Verratti moom li ñu bëgg moo di jaay ko waaye ñii ñëw moom ñoo ngi ciy séntu doomu France bii di Randal Colomwani ma nga ca Francfort li waa Paris bëgg moo di ko contrat waa Lyon moom lig 1 ba amaguñu ca ndam ñaari match la ñu am am ñaari defet ñoom noppeeguñu li ñu bëgg nag moo di di Ernest Noama ñu xaatimal ko contrat balaa yàgg te loolee nag mën naa yemb balaa yàgg li ko waral moo di gone gi jamono ji ma nga ca Lyon ma nga woon ca Danemark waaye jugee na fa lion googe nag seen gone gii di Barcola ba léegi ëllëgam ci seenub club wóoragut ndax gone gi kat Europe club yu bëri dañ koo bëgg te ba léegi nag waa Lyon seen ci moom kon ñetti club yi li leen war moo di yëngalaat seeni club balaa mercato bi di jeex ndax ni ñu dooree saison bi des na baax loole la l'équipe xamle ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Greenwood la journal bi fësal ca wu njëkk wa doomu Angleterre bi nag mi ngi dund jamono ji lu miti lool ginnaaw bi waa mën Manchester United daggee contrat bi leen lëkkale woon ak gone gi ba léegi nag gone gi mënul am club ndax jamono ji benn club bugg ko benn club waxut ci ay mbiram moom Greenwood nag li mu jàppoon moo di kat su fekkee dagg nañu contrat am dina am club balaa yàgg rawatina ci réewu Arabie Saoudite waaye li tax nag ay mbiram tagga témbe ba léegi moo di réewu Arabie Saoudite dañ leen di jiiñ ne ñoom droit de l'homme respecté wuñu ko maanaam àq ak yelleef bi ñu war a jox góor ak jigéen ak ñëpp sax dañ leen di jiin ñoom waa Arabie Saoudite ne leen respecté wuñu ko loole bokk na ci li tax ñoom waa Arabie Saoudite nee na ñu noppeeguñu ngir xaatimal contrat Greenwood kon ginnaaw bi ñu daggee contrat bi ko lëkkale woon ak club ba mu nekkoon ba léegi ay mbiram mënagul sotti ci fàttali moom dañ ko doon jiiñ viol waaye loole ñi ko doon jiiñ nag dara amu ci balo ganit mi ngi ci journal bi gone gi Arsenal moo ko moom waaye daaw ca Ligue 1 ba la nekkoon club bu ñu naan Reims gone gi attaquant bu mën la muy def la jamono ji nag jege na lool ngir dem Chelsea naam foofee ca Europe club yi ko bëggoon bari nañu lool club yooye mën nañu caa lim Inter waaye jamono ji nag Chelsea moo gën a jekku ngir xaatimal ko contrat te waa Chelsea noppi nañu ngir def quarante millions d'euros ci Balogun waaye Arsenal mi ko moom nee na ñu leen gone gi cinquante millions d'euros moo ko fi bàyyi su ngeen ko ci defee yéen waa Chelsea rek mu ñëw ci seenub club jàppale leen ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Pedro Sánchez le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa kii nag mooy président gouverneur bu Espagne dafa mer ba futu ki ko merloo nag du kenn ku président fédération bu Espagne tudd Luis Rubiales loole la ñu mën a wax ngeen baal ma nag ci kàddu yi may waaj a yëkkati ndax président fédération bu Espagne bi Espagne googee di dalal seen jigéen ñi amal jaloore ca coupe du monde féminin ba moom dafa def jëf ju ñaaw ndax am na zose boo xam ne mi ngi tudd Hermoso da koo akolaat yemuñu ci loolee mu fóon ko ngeen baal ma ci kàddu yi may waaj a wax seex ay tuñam loole nag naqari na lool président gouvernement bu Espagne tax sax mu bëgg ñu indi ci loolee ay leeral naam président fédération bi tudd Rubiales jéggalu na ne mbégte mi moo ma ëppoon doole mu ne ko kat sa mbégte lu mu rëy rëy war nga koo tolore maanaam war ngaa fexe ba tolloo ak moom waroo def jëf ju ñaaw ji askan wi wala adduna gépp di la gis ngay def lu ñaaw lii te Hermoso nag bi ko président fédération bi defee loolu ba noppi dafa mer ba futu moom président fédération bi nag jéggalu na waaye file ak vendredi di àjjuma dinañu amal AG maanaam dinañu amal assemblée générale waxtaanee ëllëgug président fédération boobee loolee la journal bi xamle waaye journal bi tamit ñëw na ci wa Real de Madrid rawatina seen gan gi di Kepa moom nag ajjuma bu Real de Madrid di fekki Celta de Vigo mën na am mu départ titulaire ca match boobee li ko waral moo di Kepa ca entraînement ya ma ngay doxal te jamono jii dafa jommal Carlo Ancelotti loolee la Marca xamle ñu jugee Marca yéenekaay jël aas yéenekaay moom it président gouvernement bu Espagne tudd xët wu njëkk wa nee na jéggalu képp nag doyul ndax président fédération bi tudd Rubiales li mu def dafa ñaaw lool moom président gouvernement bi nag li mu bëgg moo di président fédération bi tekki ay ndomba tànkam jugee ci footballub Espagne ndax lii dafa ñaaw waaye file ak ajjuma nag lépp mën naa leer ndax dinañu amal assemblée général xool ba xam nu ñuy doxalee ak moom loolee la bi xam xamle journal bi tamit ñëw na ci Carlo Ancelotti mi tàggat Real dëgg la ndax fexe na ba def Bellingham faux neuf te doomu Angleterre bi nag mi ngi dugal ay bit te mi ngi doxal ak këlëbam waaye loolee nag du tey la ko mos a def ndax daaw xam ngeen ne Federico Valverde daan na ko football lu excentré doomu Uruguay bi di doxal te moom Federico Valverde ñëpp xam nañu ne millier de terrain la gone gii di Eduardo Camavinga ñëpp xam nañu ne ab milieu de terrain la te daaw daan na ko football lu latéral gauche doomu France bi dem fa di doxal waaye ca gannaaw di Maria jamono ji mu ko doon tàggat ci Real de Madrid daan na ko football le de terrain te Ángel Di Maria nag ñëpp xam nañu ne excentré la moom Carlo Ancelotti fexe ba teg ko ci milieu de terrain bi muy doxal comme ni mu ko amalee ak gone gii di ngam kon Carlo Ancelotti jinne dëgg la loolee la journal bii di aas yéene kay xamle journal bi tamit ñëw na ci Joao Félix doomu Portugal bi nag jamono ji Barcelone lay xaar waaye su fekkee nag munul dem ca Barcelone ba munul dem ca Barcelone dàqul dem ca Arabie Saoudite club bu ñu naan Al Hilal fekki fa Neymar ñu ànd doxal bu dee doomu Espagne bii di Marcos Alonso moom waa Barcelone ubbil nañu ko buntu bi nee nañu ko boo gisee club mën nga faa dem te jamono ji nag waa Barcelone inscrit guñu ko ba léegi ci Liga bi bi li ñu bëgg moo di teqalikoo ak moom loolu la journal bi xam xamle ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Joao Félix ak Abde le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa opération attaquant Barcelone nag jamono ji ab attaquant bu wex xatt la ñu bëgg laata mercato bi di jeex bu dee waa Atlético de Madrid moom nee nañu waa Barcelone su ngeen bëggee gone gi kaay leen ma abal leen ko waaye salaire am a koy fay jamono ji nag waa Barcelone a ngi càmbar ay mbiram bu ñu sukkandikoo ci esport Barcelone it mën naa ñàkk goneem gii di Abde ndax club bu mag nekk ca Allemagne ñu koy wax Bayer Leverkusen ñoo bëgg doomu Maroc bi club boobee Xavi Alonso di tàggat noppi nañu ngir def ci doomu Maroc bi vingt millions d'euros jëlee ko ca Barcelone xaatimal ko contrat waaye semaine bii ñu nekk nag réunion dina am ci mbiru Ansu Fati ndax Ansu Fati nag ba léegi jugee Barcelone nekkagul à cent pour cent ci xelam loolee nag la ñu bëgg a toog waxtaanee ko ci semaine bii ñu nekk bu dee waxtaanam mi ngi woy bu baax waa Barcelone ak waa Manchester City daanaka juboo nañu ci lépp te file ak suba lépp mën naa leer mu xaatim contrat ca Barcelone doxal. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Lamine Yamal la journal bi fësal ca wu njëkk wa Golden Boy la ko tuddee gone gii nag jamaa dëgg la li koy firndeel moo di genn gone amul at yi mu am maanaam fukki at ak juróom benn di jar xaalis bi nga xam ne moom la lamin Yamal di jar jamono ji ndax lamin Yamal kat suñu xayma li mu war a jar cib xaalis dina toll ci vingt cinq millions d'euros loolu nag amul benn jour boo xam ne am nga at yi mu am ñu mën a am loolu cib xaalis ci yow kon gone gi jamaa dëgg la loolu la journal bi xam le waaye waa Barcelone googee nag soo moytuwul ñu ñàkk seen gone gii di Abde ndax club bu ñu naan Aston Villa da koo bëgg ak Bayer Leverkusen te gone gi dàqul jóge ca Barcelone muy Abde kon mën naa am ñu ñàkk ko journal bi tamit ñëw na ci Bellingham moom nag jamono jii dafa romb Vinicius ndax daaw xam ngeen ne doomu Brésil bi moo doon passe moo doon dugal waaye saison bi mu dooree ak tey jii nag kenn gisu ko mooy passe Bellingham mooy dugal loolee la Mundo Deportivo xamle ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Lukaku la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa jamono ji nag ay mbiram yëngatu waat na fan yële ay mbiram dafa taxawandi woon li ko waraloon nag moo di waa Juve ñoo téye woon seen bopp waaye jamono ji waxtaan bi dooraat na Juve li ñu bëgg moo di juróom-ñeenti fan yi des ci mercato bi ñu matal ay mbiram jële ko Chelsea xaatimal ko contrat journal bi nee na jamono ji ñaari club yi ñoo ngi baral jéego yi ngir matal mbir moomee laata mercato bi di jeex ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa AC Milan rawatina seen ñaari gan yi la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Tidjani Rasnider ak Christian Pulisic ñaari gone yi nag door nañu Serie A ba waaye ñoom ñaar ñëpp dañoo doxal bu dee Tidjani Rasnider naam dugalut waaye amal na passe décisive bu dee Christian Pulisic moom dafa dugal ci matsam bu njëkk soxal Serie A boobee kon ñaari gone yii saison bii ñu nekk dinañu jàppale Pioli loolee la journal bi xam le bu dee waa Inter moom ñoo ngi baral jéego yi ngir xaatimal contrat Pavard li ñu bëgg moo di bu ñu jàkkaarloo ak Cagliari gone